ah dañuy sant yàlla bu baax euh, di wax na tey jii génn nañ ci réunion bu nga xam ne dañ doon waxtaan pour xool nan lañ mën a organiser gàmmu Medina baay bii euh, nga xam ne yaakaar nañ ne boo moytu ay booru le 18 octobre lay doon léegi nag li ci jot génne mooy am na ay poñ yu ci am solo yu nga xam ne ala kulli alin poñ yooyu moom il faut ñu taxaw ci saytu ko bu baax a baax doxal ko. parce que poñ yooyu bu ñu ko doxalul lu baax rek dafay dafay dafa mën na indi ay rëq-rëq bi ci njëkk mooy kaaraange gi kaaraange gi euh, je lu am solo la surtout ci contexte bi ñu toll donc de telle sorte que force de défense et de sécurité muy police muy gendarmerie muy sapeur pompier ñëpp taxaw nañ pour li dalee ci booy dugg ci Kaolack ci biir Kaolack yenn yenn yenn yenn yenn ruq yi nekk ci Kaolack ñu mën a assurer kaaraange ñi ñu fa nekk plus particulièrement nag fii euh, ci pays bi muy jumaa jeeg li ko wër euh, këru këru këru chef religieux yi ak fi ñuy defee fi ñuy defee man cérémonie bi yëpp daal ñu bàyyi ci xel pour kaaraange nit ñi ñu mën ci ñu mën ko jël jël en compte te mënoo wax kaaraange nag soo ci boolewul lu mel ni lamp yu doy il faut que doy yu euh, il faut ko contrôle bi aussi ñu gën ko mën a def donc de telle sorte que police gendarmerie sapeur pompier yëpp danañ former benn genre état major bu nga xam ne ni ñoom ñooy saytu dem beeg dikk bi ak kaaraange nit ñi euh, loolu lu am solo la biñ jógee ci loolu aussi wax nañ ci lu jëmee ci euh, courant il faut que courant bi mën a doy seen lekk jël na fi ay engagement pour que li ñu exprimer yëpp ci besoin ci soxla jëmee ci courant moo mën a doy ba nga xam ne ni courant du coupé wala boo demoon bay coupe aussi dana am ay groupe électrogène de relais yu nga xam ne ñu duñ duñ yëg duñ yëg boo jegee ci courant aussi ndox wax nañ fi aussi ni ñu fexe ba ndox mi doy ndox mi gis ngeen engagement yi ñu fi jël non seulement am na ay engagement mais euh, wax naa ko fii SONES déjà bindoon na lettre pour jox ñu ko ñu jox ko comité d'organisation bi au moins dana am extension un kilomètre cinq cent yoo nga xam ne nii ay canalisation sans compter maintenant branchement sociaux yeeg euh, ak euh, ak bu fekkee ne ndox mi sax dem na booy bëgg a am na yeneen forage yu nga xam ne ñi ngi wër Kaolack danañ jël lu mat ay juróom fukki camion na di fa di fa jëlee ji ndox di ko indi fii sans compter maintenant borne fontaine yi nga xam ni ñu nekk ci mbedd mi sans compter bâche à eau yi nga xam ne ñi mën nañ ko utiliser pour am ndox maanaam daal mën nañ bëgg nañ daal fexe ba ndox moom manqué na kenn du ko jàmbat ci ci ci ci ci gàmmu gi buñ jógee ci loolu je crois que am na yeneen aspect yu mel ni euh, cet gi ak setal bi loolu lu am solo la set bi ak setal bi am na ay canaux yu nekk fii ci biir dëkk bi wax naa léegi assainissement ne ko nañu fexe ba canaux yooyu yëpp ñu waxi leen salte ba fa nekk yëpp dindi ko nga xam ne du ndox mi bu ñëwee day jàll du am du am benn du am benn problème am na aussi lu ñu wax toilette mobile yooyu aussi demandé woon nañ ci trente mais dama ne sax trente tuuti na ñu porté ko ci juróom benn fukk soixante pour mën ko placer quelque part te di ko mën a di ko mën di di di di di évacuer wax nañ aussi ne na ñu fexe ba setal dëkk bi ba setal dëkk bi comité d'organisation bi xale yi euh, ndaw ñi jigéen ñi ñëpp vraiment taxaw ànd ak UCG ñu jël ñu def opération boo xam ne opération set setal lay doon UCG placé ay bac à ordure li ñu wax point de point de normalisation aussi ñu rapproché ko nga xam ne dëkk bi dana mën a dana mën a set buñ ci buñ ci buñ ci yokkee nag désinfection moo xam ne service d'hygiène moo koy def vraiment dana mën a rey yooyeeg yu benn yooyu yëpp ba nga xam ne ñi dana fi mën a ñëw def màgg def gàmmo te vraiment yenn difficulté yi dootoo doo ko am buñ jógee ci loolu nag mm, am na lu am solo muy wàllu wér-gu-yaram xam ngeen ne dañoo toll ci euh, presque ñu ngi doon di génn à peine ci troisième vague te ku nekk xam na li mu fi jot a jur moo tax daal ñu bëla bëgg a jël suñu matuwaay am na ku ma posé léegi question sax ci tubaab deux millions de masques dama ne ko deux millions de masques sax mën nañ ko yokk parce du état bi rek moo koy joxe lancé naa fi appel yenn opérateurs yi yenn partenaires yi ku nga xam ne nii vraiment bëgg nga cee jàpp ñu ngi lay woo nga ñëw indi say masques indi say gel yooyu bu ñu ko dajalee je ko que deux millions de masques du du dara luñ mën a luñ mën a atteindre la mais nag yooyu bu ñu ko amee aussi allah kulli alin il faut que ñu ñu takku ko te dafa am ay ay béréb yu nga xam ne duñ mën a permettre nit nag ñëw di fa dugg te takoo masque loolu moom wax nañ ko fi mu leer parce que am na béréb yu nga xam ne raj rajloo ba fay nekk su ñi ñu takkul masque ay risque la pour ñu wàllante fekkee feebar ci am virus mën nga ko wàll sa morom donc loolu je crois que def nañ ci def nañ ci bàyyi nañ ci xel wax nañ aussi ci wàllu sécurité routière xam ngeen ne temps yi accident yi dafa xaw a dafa xaw a tàkkarnaase yal nañ ci yàlla musal mais nag euh, yàlla yàlla bay sa tool donc de telle sorte que euh, wax nañ ne il faut que ñu jëm a góorgóorlu ci loolu def sensibilisation ànd ak groupement groupement euh, chauffeur ànd ak prévention routière ànd ak rajo yi ak télé yi vraiment pour def sensibilisation ànd ak force défense de sécurité ñi nga xam ñooy surveiller yoon yi pour que nit ñi daw ndànk def attention su ñu ko defee rek je crois que yàlla mën na ñu musal ci lu jëmee ci accident si nag malgré tout yàlla ñëw na ak ndogalam aussi lii di hôpital régional ak yeneen structure de santé yi mën nañ mettre nañ leen en état d'alerte ba nga xam ne yooyu su amee ñu mën a intervenir pour sauver le maximum et le plus rapidement possible les éventuelles victimes je crois que Euh, ci gàttal je crois que loolu laa waxoon voilà campagne de vaccination fàtte woon naa ko lu am solo la parce que actuellement euh, comité d'organisation bi demandé na ko point boobu dinañ ko envoyé ci kaw sollicité ministre da la santé pour que ñu mën a organiser fii peut-être ay camp de vaccination fii ci Médina Baye pour mën a pour mën a yokk vaccination yi wax nañ aussi ne Euh, ñu ngi doon bëgg aussi ay test pour que parce que ñi ñëw fii di jógee bitim réew dinañ xaw a sakkan tuuti pour que bu ñuy ñibbi duñ mën a am problème ñu mën leen defal fii test test sur place ñu mën a ñu mën a mën a am test am seen résultat pour mën a jël seen avion retourner je crois que daal loolu euh, wax nañ ko fii euh, sécurité nag moom bu soobee yàlla dafa nekk lu nga xam ne nii doo ko farañ fàcc ci public ci ay biiru nit mais daal bu ma nee kaaraange rek mooy englobé na lépp lépp la englobé ku fi leneen indi lu may gàmm aussi eh, ñun dag ñu fi fekk donc je daal loolu bàyyi nañ ci xel pour sécuriser ñëpp ñëpp ñëw ci jàmm dellu ci jàmm salaamaaleykum